ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu bëñ moom nag euh, moom moo la koy daal di euh, defaral nit ki bu amee détartrage euh, li ko ko mën a jox bokk na ci café ataaya wala sax naanum sàngara te boobu le détartrage dina dindi lépp luy bactérie wala sax boo amee feebaru gémmin wala sax lépp luy feebaru siiñ waaye nag lii di weexal say bëñ jamono ji dañoo seetlu ca kër institut de beauté yi lañ koy gën a faral di def te ñooñu amuñu benn diplôme bu leen di certifié que ñoom war nañ koo def sax am na ay jafe-jafe yum la mën a jural yu ëpp ci sa wàllu wérgu yaram ci jafe-jafe yooyu seetlu nañu soxna si nga xamante ne dafa wan lor wala sax dafay nàmpal warul def boobu weexal bañ xale bi nga xamante ne ay atam néew na fukki at ak juróom-ñett waru koo def wala ki nga xamante ne dafa am feebaru siiñ waru koo def benn yoon ñi nga xamante ne euh, saa su ne seen bëñ dafay faral di métti wala sax ñu am euh, carie dentaire waruñu def li nga xamante ni nag moom moo di weexal ay bëñ boo demee nag bay weexal say ngay bañ euh, demal euh, ci kër docteur rawatina dentiste ñoom la ñu jagleel euh, pàcc boobu ñu defal li nga xamante ni moom moo di détartrage mu nekkoon euh, li nga xam ne mooy élément bu ñuy jagleel tey li nga xam ne moo di santé de la beauté maman euh, li ñu euh, jot a dégg bokk na ci bu njëkkoon fi ñu ko doon defee ak léegi li yu bëri yi nga xamante ne ni que dañ ko fi defee mu mel ni lu wute la. Mm-hmm. léegi si yenn ci ay institut de beauté dañ koy def wala sax yenn ci ay place yoo xamante ne ni que ñoom tamit dañuy faral di def li nga xam ne moo di blanchiment wu bëñ mm-hmm. te am na tamit ay gàllankoor yoo xamante ne mi ngi ci. am na ay gàllankoor yu bari sax yoo xamante ne mi ngi ci gàllankoor yi du benn du gàllankoor yi dafay dépendre ci bi ngay def parce que boo demee ci institut yi ñoom dañuy def blanchiment des dents ñoom ñoo baaxoo loolu di ko def ci seen institut yi mais boo demee euh, ci wàllu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di dentiste yi ñoom li ñuy baaxoo di def mooy détartrage donc ñoom mu doon ñaari anam yoo xamante ni dafa ute kenn ku ci nekk nag ñoom euh, ñoom ñaar ute ñu may euh, pour ki koy def lenn li moom moo tax mu bëgg di ko def maanaam bëgg ay bëñam weex parce que duñu umpale que ne bëri na yenn yu ñuy jëfandikoo lu ci mel ne comme ataaya wala nit ki di tox wala nit bi di naan sàng wala yenn yi nii wala boo farataalu di toppatoo ngay sottu da ngay gis que ne da ngay dem ba sa bëñ yi dafay am ay gàkk-gàkk yu ci nekk am loo xamante ni dafay tegu ci say bëñ même bu fekkee ne dañuy ràññee ci Sénégal fii ne am na yenn béréb yoo xam ne boo fa juddoo da ngay juddu rek indaale ay bëñ yoo xamante ni leen nii dafay dafay ñuul dafay lëndëm mais euh, ci kaw loolu nit mën na am bëñ yu weex sax di dund di dem mais du toppatoo ay bëñam mu dem ba bëñam yi xallu mhm. bëñam yi am ay gàkk-gàkk am ay yu yoo xamante ne nii dafay nekk ci bëñ yi loolu dina baax pour que nga dem gisi di ji dentiste bu fekkee ne danga ko bëgg a dindi parce que xam nga lépp lu ci nekk rek dafa am koo xam ne moom la xam-xamam màcc ci jëm ci wàll boobu donc noonu da ngay dem seeti ji kooku tey bu fekkee ne da nga gis ne sa bëñ yi dafa xàllu yaa xam loo mënoon doon jëfandikoo dem na ba yàq sa ay bëñ da ngay dem seeti ji dentiste pour mu xool la dans un premier temps day xool ban euh, ban euh, bëñ nga am ba pare pour que mu mën a xool nan la koy saytoo ban signe nga am parce que loolu noonu yëpp da ciy daal di am solo boo demee ci institut yi nga xamante ne nii dañuy def yenn blanchiment des dents yi xam nga inconvénient yi ci am boo gisee tey ñu indi ko di ko waxtaanee dañu gis ne nit ñi phénomène bu nit ñi jël bu baax a baax a baax foo tourné ñu ne dañuy dem weexali ji suñu bëñ te mhm. pourtant institut yi nga xam ne ñi ngi koy def ñoom spécialisé wuñu ci lool tul ci loolu noonu bu ñu la ko defalee ba pare mu am ay yeneen gàllankoor yu la ci mën a fekk xëy na ci saa si mën nga gis ne say bëñ dina weex mais ci weex boobu muy weex ni ñuy euh, xoosee sa bëñ yi wala li ñuy dind ci moom mën na oyofal bëñ bi <coughs> ba nga xam ne bëñ bi pour mu euh, bënn da koy daal di yomb mm-hmm. pour mu tamit da koy daal di yomb mais aussi tamit mën na indi yenn infection ci sa siiñ mën na indi yu bëree bëri yoo xamante ni la nii pour nit ki koy def du loolu moom moo taxoon parce que xam nga taax boo xamante ni la dafa am àpp moom wax dëgg yàlla doonul loo xamante ni la nii pour man ki ki ko xam du ko du ko defee noonu mhm. da ngay gis que ne sax mauvais loolu mën na ko causer parce que ci produit yooyu ñuy utiliser yooyu mën na dem ba nga xamante ni day yàq sa signe te signe bi bu ko yàqoo day mën a lu dem ba yàqu nëpp mhm. te nëpp boobu noonu mën na tax yow fépp foo nekk di fa wax wala ngay def nit ñi dootuñu ko mën a supporter mhm. ba nga xam ne li la li nga ci doon ut contraire loolu nga ciy daal di dem jëlee mais nag du tere ñu ne ñi bëgg a weexal seen i ay bëñ dafa am méthode boo xam ne moom la ñu ko war a weexalee dentiste bi moom moo ko xam moom moo am euh, matériel bi nga xam ne moom mooy jumtuwaay yi war pour que mu mën la defal loolu mais aussi moom moo am produit yi nga xamante ni leen nii du am beneen effet boo xamante ni leen nii mën na indi gàllankoor ci sa wàllu mhm. ba nga xamante ni leen nii bu la loolu jaaxalee ci moom nga war a dem mu xool mhm. saytu say bëñ xool tamit euh, lan la la war a mën a defal parce que mën nga ko supporter comme mën nga ko bañ a supporter am na tey loo xamante ni ñoo xamante ni bu ñu demee seeti dentiste bi loolu duñ ko mën a def du leen mën a defal benn yoon détartrage parce que seen bëñ attanu ko da ngay gis que ne dafa am ñoo xam ne fu ñu toll seen bëñ dañuy bënn mhm. maanaam da bu dul dara du dara dañuy jàmbar sama bëñ fii day metti sama bëñ bi day yëngatu sama bëñ bi dafa bënn mhm. lii def ci solu nangam nangam kooku bëñam dafa fragile donc mënul attan yenn yi nga xamante ne nii bëgg na ko ci def day mujje euh, bu nekkee ne bëgg na dindi ay xallu xallu bëñam naturel bi mooy lu ci mel ne ay soccu parce que ñëpp xam nañ ne bari na ay soccu yoo xamante ne nii am na fii ci réew mi mhm. soccu yooyu dafay weexal bëñ socc yooyu tamit dina la dimbale bu baax a baax ci mauvaise haleine socc yooyu tamit dina la dimbale pour gën a dëgëral sa bañ aussi tamit si signe bu fekkee day naan tout le mën na la ci bind lu ci mel ne ay socc euh, xabatu saw kii euh, Amina sa mi ngi doon wax keroog xabatu saw daal lañ koy wax mooy socc bi yonent bi daan def ak ay socc guro ay socc Dakar socc yooyu noonu yëpp dafa baax mm-hmm. mais tamit lu ci mel ne citron boo ko dee mm-hmm. jëfandikoo dina mën a weexal sa bëñ lu lu lu bëri bëri dañ ciy dem sax ba xuus ba ne wax ko ne que ne carbonate bii nii. mais day dépendre ci ni nga koy utiliser parce que comme ni ñu koy waxee am na loo xam ne boo ci ëppalee rek mu daal lay gaañ moom tamit am na yeneen yoo xam ne ay composant la yu nekk ci biir yoo xam ne booroo tout le temps nga di ko def ci sa siin sinon da koy daal di yàq mm-hmm. lu mu ci mënti doon loo bëgg a dindi ci yow lu ci bokkul rek da ngay xool ni ñu ko war a dindee dindi boo xam ne aussi tamit du am benn gàllankoor parce que comme ni nga gisee kii nii bëñ bi mën na am weexaloon na ko ba mu weex mais day jékki-jékki seulement dina xàll bi day ñëwaat mais aussi tamit bëñ bi day bënn bëñ bi dina bënn bëñ bi day oyof bëñ bi day jékki-jékki mën na toj sax parce que xoos bi ñu ko doon xoos noonu moom mooy tax euh, émail bi nekkoon ci bëñ yi nga xam ne moom moo bi loolu noonu yëpp dañ koy daal di dindi te loolu pour man euh, lenn yi du ko daal di jar comme ñu bëri nag dañuy def dara te duñu xam euh, euh, inconvénients yi leen ci mën a fekk conséquences yi ñu ci mën a jëlee loolu moom moo tax te bañ doon lu bokk ci nit bañ doon comme ni ko kaa waxee sànq ci lii bi xëy na tey euh, nit ki boo bu say bañ weexee dina dina neex ci yow mais bu demee ni ni day moom day doon benn complexe boo xamante ne ni yow da nga koy jàpp ci sa bopp xëy na sax euh, nit ñi mën nañ ci bañ a bàyyi noonu noonu xel parce que lu nit tàmm ak nit di ko gisee ak moom du grave mais yow mi muy dal ci sa kaw day nekk benn complexe day nekk benn blocage yow ak nit ñi coûte que coûte da nga ko war a dindi mhm. mais dindi bi ci na naka ak dindi bi tamit bu fekkee ne war naa mën a deñ ndax du ñëpp la seen bëñ mën a mel noonu ñu dindi ko mu deñ wala bu deñee yi dina ñëwaat te bu ñëwaat da lay indi leneen loo xam ne mhm. nga ñàkkoon ko dindi sax moom moo gën moo tax te defal leen gëstu ci li nga xamante ni la nii moo di blanchiment des dents euh, pour que nit ñi comprendre que ne du ci institut yi lañ ko war a defee ñu baal ni bien vrai que ne seen liggéey la mhm. mais ñoom seen xam-xam màccul ci wàllu boobu noonu bëggee dindi lépp lu ci bopp da nga dem seeti dentiste moom moom moo lay saytu xoolal la boo waree def détartrage bi mu defal la ko ci anam yi mu ko war a defee war a utiliser mais aussi tamit jumtuwaay yi ci war moom mu utiliser ko wax la ni nga ko war a defee ak tamit entretien bi après parce que du nekk da ngay jógee foofu rek après nga dem toog sa kër dafa am benn processus boo xam ne moom ngay topp donc loolu noonu yëpp dentiste moo ko moom moo ko xam moom moo la koy mën a lu ci mel ne institut boo demee ci saa da ngay gis ne buñ la tegee dindi rek ci saa si saa dafay daal di weex te loolu rek sa xel war na ñaaw ci ne lii bu dañee léegi léegi léegi gaaw na trop pour que après mu am. Euh, benn effet ci effet secondaire bi exactement donc loolu noonu. nit ñi bàyyi ci seen xel mais comme ni ma waxee sànq rek bu la lenn li dalee yow da ngay gis ne loolu dafa war a dañ rek ba lenn doo ci bàyyi xel ñun dañ fee nekk pour seen wàllu taax moo xam bi baax ak bi bon lu mu ci doon dañ ciy amal ay gëstu pour ñoo waxtaan ak ñoom pour buñ fi jógee ñu xam bu ñu ko bëggee defit nu ñu koy daal di defee ndax bu ñu sañoon ñoom ñëpp seen ay bëñ day daal di weex day rafet comme ni ñu ko bëggee mën mhm. man euh, lu ma ci laaj leen la mhm. euh, euh, mu nekk nii dentiste bi mhm. moom mooy def blanchiment euh, de dents weexal bi moo koy def wala moom bu xoolee nga bëgg ko def moo lay envoyé ci benn institut loolu laa bëggoon xam euh, foofu ak tamit euh, maanaam coût bi parce que xam ne bëgg nañ ko buñ ko gisee xam nga ay bëñ weex dafa dafa baax te dafa rafet mhm. dégg nga ah jigéen taa boo déggee ñu naan jigéen taa bu signé rek ah ñu soo ñu gën a ñu xam ne nag ah, ah jaajëf waay ah voilà kon nag léegi nag loolu rek laa bëggoon xam euh, pour nga ñëw ci loolu. <laughs> d'accord boo ñëwee ci première question bi mooy que ne boo demee sa ci dentiste bi. Mhm. bëgg a dindi say bëñ euh, yu am ay gàkk-gàkk bëgg ko weexal boo bëggee def benn blanchiment de des dents moom du la yebal ci institut bi. Ah, parce que ah. moom xam a màcc na ci wàll boobu. seulement moom du la defal euh, blanchiment des dents moom dafa maanaam dafa am ay jumtuwaay yoo xamante ne moom daf ko am benn machine la boo xamante ne nii lépp lu nekk ci sa bëñ mu nekk ay gàkk-gàkk ñoom dinañ ko xoos man ne kuy liime comme we dinañ fexee ba dindi yooyu noonu yëpp lépp luy ci dem lépp loo xamante ne bokkul ci say bëñ lépp luy salte lépp lu ci bokkul daal ñoom dinañ la ko dindi ba mu daal di set bokkuñu sax méthode bi ñu koy liggéeyee donc ñoom mën nañ ko te loolu mën na nekk mën nañ la ko defal te euh, inconvénient yi gaan nag du du damay préciser foofu que ne lépp loo gis am na euh, lu ci baax am na loo xamante ne lu ci tamit safaanu la mais dentiste yi ñoom ñoo ko war a def ndax ñoom ñoo gën seen méthode bi ñu ko moom mooy moyen de danger bi pour ki nga xam ne moom moo koy def donc ñoom duñ la yebal ci benn institut ñoom dañ la koy defal mais seen façon wu liggéey ñoo bokkul kii daf lay weexalal kii dafay dindi lépp lu ci bokkul donc loolu mooy différence bi entre dentiste bi ak institut bi nga xamante ni nii moom dafay weexal bañ du tere it euh, moom bu ko defee sa ba ñu dina weex comme comme kële d'accord waa coût bi tamit euh, cher na waaw yomb na tamit ah ana jàppandal cher na moom yombul tamit wax dëgg yàlla yombul xam nga blanchi. est-ce que est-ce que euh, xaw ce que. peut-être euh, pour institut yi sax. Uh-huh. <laughs> mooy tane. mais est-ce que. kon euh, jàpp ci xanaa mënuñoo jàpp kon ci socc yi. moom mooy mooy li ma doon wax sànq. moo gën mooy waaw mais est que socc bi dina def loolu. ci ci kaw nga koy parce que lépp loo gis rek coach dafa am. benn kii boo xam ne temps boo xam ne dina ko jël pour nga am résultat mënoo xëy tey tey nga sotti tey sa bët yi weex nii tey soccu da koy farataal di ko def mu bokk ci sa dund foo amee jot nga jël sa soccu nga toog di soccu sa bëñ ba mu weex loolu moom mooy tax sa bëñ yi lépp lu ci bokkul du ci nekk mais tey mënoo toog benn un nga jël soccu soccu ko di xalaat ci bëñ yi ne mën na weex yenn weex yi xam nga bëñ gémmiñ dafa doy dafa dañ ko war toppatoo du xëy mhm. brosse rek mooy toppatoo sa yoo amee temps rek war nga am soccu ci sa saak jël sa soccu parce que socc fi mu mën a dugg sax brosse mhm. mënu fa dugg mhm. te socc li mu mën a dindi socc ma da ngay gis ne au temps mag ñi daaw ñu doon brosse mhm. pourtant temps bu njëkk ba la mag ñi ay bañu weer suñu maam saa la reetaan naan nga kontaan parce que dañu doon dañoo amoon jot tamit teg ci mais dañu daan toppatoo seen bëñ yi bu baax a baax a baax te rawatina léegi socc yi nga xamante ne ni lu ciy rëcc ba dugg sa biir dina la aar ci yenn jàngoro yu bëri ndax socc yu bëri dafa am yu muy lu muy faj am ay ngëneel yu ci nekk mën la tamit xëy na euh, bu fekkee ne sa gémmi day am xet wala yooyu noonu yooyu yëpp mën na la ci dimbali ba nga xam ne pour man socc yi nit ñi dañ ko bàyyi soccam léegi ah, raax na mais dañ ko war a dañu war a delluwaat ci socc yi parce que socc dafa am njëriñ ci gémmiñ mm-hmm. Amina mm-hmm. Ah, voilà euh, Seynabou man li ma amoon li may li may dolli ci loolu mm-hmm. mooy nekk euh, xëy na euh, institut de de d'esthétique yi def blanchiment du seen wàll mais ñoom tey jii am na ñenn ñu ci yeewu ñoo xamante ne comme xam nañ ne loolu du seen cër loolu du seen wàll ñoom ñu ngi lëkkaloo ak ñu si mel ni dentiste yi di liggéey ak ñoom ba tax na tey ji fekkente yow da nga bëgg a def blanchiment boobu dentiste boo xamante ne ñi ngi travail ak ñoom dinañu woo dentiste bi mu ñëw consulter la xoolal la sa gémmiñ ba pare ba sa gémmiñ attan na li nga ko bëgg li nga bëgg a def ci moom li te li nga xamante ne mooy détartrage dina la ko defal après nag ñu soog la euh, ñu soog la defal blanchiment bi mais euh, dama lay rejoindre quand ci li nga wax euh, blanche blanchir say dents baax na mais foog naa li gën mooy effectivement ngay def détartrage régulièrement jël sa gémmi euh, xam nga nit ki ñun ñun ñun dañuy réere mbir benn affaire mooy régulièrement dañu war a dem seete suñu dentiste moo xam euh, am nañu méttitu bëñ moo xam amuñu méttitu bëñ parce que régularité boobu ngay am moo lay permettre yow lépp loo xamante ne bokk ci sa gémmiñ rek bali mën a prévenir yenn jàngoro yi ba mën la ko saafaraal socc bi wax nga ko lu am solo la mais également am na loo xamante ne dafa am solo maman loo xamante ne dafay dimbali nit ñi si si seen euh, si ñu am bëñ bu weexa ah, mooy alimentation gis nga les fruits et légumes yii ak euh, fruits ak légumes yi dafay indi yenn vitamines yoo xamante ne dafay permettre yow sa bëñ di weex boo ko manquélee mooy waral sa bëñ du weex muy xal la mooy waral sa gencive yi di oyof mooy waral sa bëñ di oyof comme ni nga ko doon waxee noonu di bënn tout le temps nga gis tout temps nit ki dafay am méttitu bëñ bëñam di métti di métti parce que dafa manqué yenn moom moo koy mottali pour tax bëñ bi dëgër gencive yu dëgër pour tax bëñ bi weex mhm. donc loolu fruits et légumes yi am na ci solo socc bi am na ci solo mhm. mais di seeti dentiste également régulièrement mu lay defar di tartrage tam am na ci solo mhm. <laughs> waaw euh, euh, ñoom ñëpp li ñu ñoom ñëpp li ñu wax ah muy wàllu blanchiment des dents coach bu la ci kenn wedd bu la ci kenn nax dafa cher buñ la ko waxee chair na buñ la ko waxul cher na <laughs> kon nag xam naa ne yow defewoo blanchiment de. dee naa junni fukki junni sax taxul nga def ko. Euh, boo bëggee dégg dëgg voilà léegi pour. wax wàllu njëriñ ma jàpp ci déjà man man personnellement je suis contre. Mhm. bien que ku nekk boo ñi koy def je respecte leur choix mais man je suis contre euh, <laughs> d'autres ma diront que c'est parce que tu as déjà des <laughs> dents blanches mhm. mais doyul am na ñoo xamante ne ñi ngi def blanchiment des dents. pour xëj na gën a yokk sa taaru gémmiñ mais pour man complexe mi ngi ci parce que am na ñoo xamante ni euh, seen bëñ bu weexul tàll dañ ko judduwaale pour len nga war a bàyyi ba à un certain niveau de ta vie nga bëgg a dem defi blanchiment des dents euh, euh, li nga xamante ni li bëy daan dundee ba màgget ba mën na ci war na cee mën a woy ba dee d'habitude am na ñoo xamante ni buñ la waree a defar dañ lay mettre devant le fait accompli ils te disent carrément que baaxul maa ngi la koy defal mais dafay oyofal sa bañ. émail mm. dafa ku ne xam nga dafa am solo ci bañ parce que daf koy protéger. Mm. ki la koy defal dina la xamal ni que yaa ngi koy def mais am na risque bi risque bi risque bi. Ah xam nga kon ñooñu am na ci ñoo xamante ne ils sont vraiment francs ak seen bopp. Mm. ils veulent être quitte avec leur conscience du coup ils te lépp li nga xamante ne moom moo nekk ci blanchiment des dents boobu nga xamante ni euh, moom nga bëgg a def nga def ko pour à un moment donné ta vie. tu peux encore jàmmarloowaat ak ay bëñ yoo xamante ni xët na li nga ci doon dindi euh, tu pensais ko dañ na mais ci bees bees dañ na parce que am na mu lu mu wàññi ci yow mais au fond boo demaatee ba quelques mois après tu te rends sama bëñ fii am na lu des fii am na lu des fekk xëj na ci bees bees bi dafa am benn stade boo jógee ñëw ci beneen stade moo tax ci yow ngay jàpp ne que sa bëñ yi weex na mais weexul tàll man gis naa koo xamante ne nii <laughs> bëñam taxu ko woon sax kii ñaari bëñu Kaolack rek la am fii mais comme liggéeyam dafa am lu mu waroon commencer ak yu mel noonu mu ne day dem defi blanchiment des dents mais fu mu toog ba tey da koy da koy jàmmat sama bëñ yi sama bëñ yi sama bëñ yi te avant loolu noonu daaw ko woon dal xam nga d'habitude on nous dit ñi Kaolack yi du ñu am métitu bañ mais effectivement xam nga boo ko waxee retaan da lay jàpp mais say waxtaan ak ñoom sax dañ la koy wax bañ na ko ba ay affaire yu méttitu ba ñii duñ ko fooyee Modou Diouf nee na ma Kaolack dentiste bu foo ubbi di nga gaaw a tëj ndax doo gis ku ñëw ne la sama bañ dafay metti comme pour dire yàlla lu nekk rek lu mu def am na lu tax xam nga ñi nga xamante ne amuñu loolu peut que méttitu bañ sonal na leen. lu ñu liggéey yóbbu ko ci dentiste ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi am yenn bëñ yu marron yi affaire yooyu euh, comme ñi nga xam ne dañu nekk Kaolack te d'habitude xorom bi euh, ndox bi moom moo leen di ko jox mais seen bëñ dëgër na. duñu jàmmat bañ duñu duñu du dentiste ba bëgg a dee ndax euh, euh, problème mu méttitu bañ donc ak lu ci mën a am rafet na c'est vrai euh, ci taar la bokk c'est vrai mais comme ni ko maman recommandé je pense que jël côté bi gëna a naturel c'est mieux utiliser soccu ak tout ce que maman a expliqué pour mun ko def mm-hmm. ay bicarbonate ak yooyu prendre soin de ses dents c'est mieux que dem fay xaalis bu dul jeex que c'est ay cinquante mille trois quatre fois <laughs> <laughs> ngay toog de blanchiment des dents ba pare euh, mu ñëwaat à un moment donné de la vie euh, mooy loolu jaru ko. Mhm. maman lan ngay jeexale. waa euh, li may jeexale mooy que ni ñu bàyyi xel rek li ñu. ñuy wax rek li ñu ci contribuer am na solo mhm. li ñu amaloon solo mhm. rek mooy que ne ñu ñu xam ne que ne du lu ñu leen tere pour ñu def ko mais nekkul li nga xam ne moom moo gën ku dem nag ba nga jàpp ne danga ko war a def xëy na si porté woo sa bën ñi mel nee na ni nga dem tamit seet ñi nga xamante ne nii ñoom seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu boobu noonu xëy na saa yoo seetee ki mën li muy liggéey nga sant ko sa liggéey même bu dee am ay danger ci lay gën a néew que ne ki nga xamante ne la nii tey jii euh, moom mooy loolu comme ni ko Amina waxee tamit am na solo parce que bu fekkee ne ñoom ñi ngi lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di dentiste yi temps mieux parce que loolu moom moo gën mën nga seet koo xamante ne nii mën na loolu noonu mu expliquer la ni ñu koy defee su ko defee ñoom bu ñu lëkkaloobee sax pour man dina gën a nekk doole ndax kii bu jëlee li mu xam partagé ko ak leen ñu boole ko dinañu gën a yombalal askan bi nga xamante ne leen nii xëy na dañoo bëgg seen i ay bëñ weex comme ni ñu koy waxee li ci des nag mooy que ne ma rejoindre Thioro ci li wax tamit am na solo ki ni ngay mel ba pare mooy li may wax chaque jour dañuy góorgóorlu rek ci suñu bopp pour xëy na gën a mel nee na am na loo xam ne yàlla moo koy bindee nit ki ba pare donc bu la ah nga jàpp ne sax yow meloo nee na ni fekk nit ñi neex nga leen mel nga mhm. nenn ngi mhm. parce que tamit man mooy li may wax damay wax ku nekk noo mën a mel am na ku la bëggee noonu mm-hmm. am na koo xam ne yow neexee nga ko noonu pour kenn ki nga xam ne yow bëggee na la noonu rek kooku rek jar na nga bàyyi noonu nga mel donc amul problème nu waay mel am na ku ko bëgg te finalement sax ñëpp ñoom ñoo mel ñu leen neex ñëpp ñoo jekk ñëpp ñoo rafet man ñëpp ma neex te xam naa ne yéen tamit ñëpp leen neex donc amul problème mooy loolu mm-hmm. àdduna amul benn solo li gën a am solo nekkul ni ngay mel ni ci physique mais li nekk sa intérieur donc yéen jigéen yéen rek la yéen rek bilaay dëgg dëgg ko pourtant lu mu ci mën ci doon yéen kese boo ñun la ah. waaye mel nii te nga tourné ba si yàgg mel ni kàkkatan ñeneen ñëwaat ñeneen dugal ci xaalis son ñun après góor ñi tam ñu koy defal dootuñu ñu xàmme loolu waa loolu la lu nekk rek kii ni dindi fii tam nga gis bët bi def nii boo ëllëgee bët bi def nii <laughs> ah. en tout cas lu mu ci mënti doon daal euh, am na solo comme ni mu tooxee ñu jàppee ko noonu euh, jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci ku ci mel ne Mamika maa ngi koy remercier Aline Diop ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal après nag jox leen dig daje beneen vendredi ñu ñëwaat ci beneen gëstu boo xamante ne nii yéen a ngi koy def pour yokk seen taax mais mu am ay gàllankoor parce que li ñu leen ko waxee li ci am solo du lu ñu yitteel torop mais li leen ci. moo ñu yitteel pour que ngeen xam ko bu ñu jógee foofu nag daal di jaajëfal Aya Couture moom mi nga xamante ne nii sœur la ci man mais aussi tamit day jàpp bu baax ci sama liggéey ci wàllu sañse bi di ngeen gis numéro noonu ku ci bëgg lu baax rek nga seeti ji ko bu ma jógee foofu daal di nuyu euh, Pape Sylla xam naa ne tey moom xam naa boo motul mi ngi seetaan donc manqué nuyu moom sama frère la di ko nuyuwaale moom Paate ak maison de la mode ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di jaajëfal téléspectateurs seen teewlu di leen jox dig daje di ak jàmm incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i bagage yoo xam ne xew-xew lay doon fii ci réew mi incha allah jaajëf jaajëfal ko Miss Beauté léegi léegi ñu jàll ci beneen wàllu beauté waaye nag bi la yoon beauté naturelle la ñuy wax ak mode islamique ànd ceeg ki nga xam ne moo di Amina comme ni ñu koy defee aljuma ju jot ñu yegg siwaat comme ni ma leen ko waxee ci euh, sommaire bi tey nag li nga xam ne moom la Amina di waxtaane euh, mooy wàllub koko euh, ak it njëriñ bi mu am ci doomi aadama muy ndox bi muy li nga xam bi ak leneen loo xamante ne mi ngi mi ngi ci biir koko bi wax nga ko seena bu xanaa balaa may tàmbali rek ma profité nuyu waa plateau bi. Mhm. nuyu également askan bi ñuy seetaan mi sama ko ci coach international. jaajëf waay. <laughs> gumi sa gaaña faxe njaago ba ca pare. ba ca pare danga ko ciy boole saf safal bi la. mi ngi noonu da ko ciy boole. <laughs> <laughs> voilà comme Seynabou comme ni nga ko waxee. te dañuy fas yéene waxtaanee euh, kii di Coco. Euh, donc sa déggee Coco ndox mee tax ñuy wax euh, ñam gi moo tax ñuy wax mais également huile bi moo tax ñuy wax. Mhm. alors Coco dafa nekk loo xamante ne. ñun ñëpp xam nañ ko. koo dégg koo dégg ku ne. mu ngi naan huile de coco dafa baax ndoxu coco dafa baax ah parce que nit ñi dañ ko baaxoo di ko utiliser ci ay ci ci ay masque pour seen karaw mais euh, tey jii ñu amal benn taxaw seetlu ñu ne nañu ñëw nag ñu waxtaanee coco est-ce que réellement euh, nit ñi xam nañu ban njëriñ la la leen la leen coco amal ban njëriñ la leen ndoxu coco bi amal ban njëriñ la leen huile coco amal kon euh, ñu wax ne ko kon coco soo ko gisee ah. Euh, yamul rek ci ci ci ndox. Mhm. ndox mi ndox mi nga xamante ne xëy na soo ko naanee mu indi mu lay réfléchir. teere ñu ne ndoxu koko boobu baax bi yamul rek ci loolu am na beneen yeneen yeneen ngëneel yoo xamante ne c'est pour les cheveux secs mooy karaw yu wow ak karaw yi abime yi ñu ne ko am na am na dafa am njëriñ pour loolu léegi ba tax nag ñu nekkoon dañuy ñëw rek ñu liim fukk ci ngëneel yooyu. li li koko ndoxu koko bi déjà mhm. waxaguma huile bi de maa ngi ci ndox bi ba léegi rek mhm. ndox mi moom ngeen gis nii euh, bu ko voilà bu ko caméraman bi voilà très bien ndox mi moom moo ne nii ñu nekkoon kon euh, lait de coco ak huile bi dañu am ay acide gras mhm. mooy ay graisse dañuy dugg bu baax ci yatu karaw dañuy dugg ci baax ci yatu karaw bu ko defee dañ koy mën a dundal ci biir yat bi ci boppam yaxu karaw bi ci boppam dañ koy dundal. Mm. ñu ne beneen beneen gëneel bi ndoxu ko ko ñu ne dafa am ay vertu hydratant wax naa ko léegi mooy euh, lu wow mu mën ko tooyal ba mu ba dund dundal ko ba tax cheveux secs yi dootuñu damm dootuñu ko mm-hmm. beneen bi mu ne au fii la à mesure ngay ngay euh, ngay ngay utiliser ndoxu ko ko sa karaw dafay gën di sax te nu muy saxee noonu. dafay tax karaw gi dafay gën a dëgër yat bi dafay du gaaw a damm ba pare dafay dijjal yat bi xam nga euh, am na jigéen ñu bari ñoo xamante ne cheveux moom moo leen sonal mm-hmm. c'est-à-dire seen karaw dina gudd seen karaw dina dina dina dina màgg mais dafay yaraax mm-hmm. donc ndoxu ko ko baax na torop ci ci ci ci dëgëral karaw baax na ci sëxal karaw mm-hmm. ñu ne beneen bi ñu ne am na benn cocktail boo xamante ne c'est très bien mooy nga jël euh, citron ndoxu citron bi ak euh, ndoxu ko ko nga mélangé ko boo ko mélangé nga appliqué ko ci sa bopp loolu li muy li muy jàppalee nit. Mhm. mooy nekk dafa am ay ay nit yoo xamante ne seen karaw dafay baramu. ñu ne boo ko appliqué noonu dina dimbali ñenn ñi bu ko defee karaw gi dina xaw a détendre tuuti dootul baraw noonu baramu bu bari boobu beneen affaire ñu ne euh, lait ko ko dafa am antibactérien mhm. ba tax na ñi nga xamante ne ay pellicule ay caras daf leen sonal bu ñu dee utiliser ndoxu coco boobu également dina leen dimbali lool pour ñu mën a xeex euh, caras boobu beneen utilité biñ ci gis mooy nekk euh, ñooñu peut-être am na yenn jeunes ñu muy dal mais surtout mag yi lañ koy gën a euh, lañ koy gën a gis. Mhm. mooy boo commencé béjjaaw soo commencé béjjaaw ngay utiliser ndoxu koko que euh, béjjaaw boobu daf koy ne dootul gaaw génn ba noppi karaw bi ñëw repousse mu tax ma karaw bi saxaat. Mhm. karaw boobu dafay retrouver coloration normale am du du du du kooku du du mais dafay ñuul. Mhm. donc kooku tam doxu ko ko lu baax la. tam mais li nga wax noonu dina arrangé papa yi bañ a màgget de. maa la wax lii <laughs> moo tax gisoo bi ma ko waxee rek. ko ci dafa taxawaat gisoo ko lay xoolee. Mhm. c'est important waaw c'est important. mais dañuy bañ màgget. beneen waaw ah, doy na waar ah. waaw gis nga de ah. ah, ah doxu ko dafa am solo. waaw waaw ah kon déggoo li ma fi liim yëpp. waa te amul xet. am na lu des. am na lu des beneen bi mooy. Euh, karaw yi nga xamante ne dañuy dañu dañu terne xaw ma terne dañu lëndëm ndaa ko mën a waxee sooy def sooy utiliser ndoxu ko dafay tax daf koy may brillance daf koy may éclat ba pare ndoxu ko dafa bari nag aussi dafa dafa dafa kooku nu mu tudd dafa bari protéine protéine boobu comme ni ñu wax rek dafa baax torop ci saxal karaw ci sëqal karaw ci tax karaw gi du damm dafa riche en potassium xam nga euh, vitamine dafa baax. lépp loo gis moo tax fruits et légumes yi baax na ci ñu koy utiliser ni mu baaxee si bañ noonu la baaxee ci der ak karaw ak lépp euh, beneen affaire mooy dafay adoucir karaw dafay beneen affaire aussi ndoxu ko ko boo ko boolee ak lu ci mel ni argile verte maman wax na ko fi keroog euh, coloration des cheveux yi ñuy def boo boolee ndoxu koko bi ak argile verte bi da appliqué ko dafay tax yow kii bi coloration bi day dañ day dañ day dañ ba set sans pour autant sa karaw damm sa karaw yàqu et mhm. kon ngeen gis ne que ndoxu koko bii dafa am solo soo demee ci yenn xeet yi par exemple Jamaïque boo fa demee xam nga ñoom dañoo bari dañu bari koko mhm. ñoom soo leen xoolee ay rastafari lañu seen karaw yi dañ ay locks dreadlocks yooyu mhm. mais ñoom boo leen seetloo man ci clip yi may gis boobu dañ sotti seen bopp nii ah soo demee euh, ku si mel ni comorien yi noonu tam farataal nañu lool euh, ndoxu ko ko parce que gis nañ xam nañ njëriñ yu mu yu mu am bu baax ci ci seen karaw dafay dafay dundal karaw dina baax tam ci ñuy yar karaw bu baax kon euh, dinañ ci jëndal euh, ki toogee ne ci ginnaaw bee <laughs> vitré eh, bàyyi jàmm naa ko naa ko def ki nekk ci ginnaaw bee vitré bi après fu ko ci waa sa xarit boobu <laughs> dégg kon lii ma fi wax yëpp nii ci ndoxu koko la rek. Mhm. njëriñ bi ci ndoxu koko. kon ba yegg yeggagoo ci leneen. ba mais Amina nga baal ma balaa nga yegg ci huile bi ndoxu koko bii. ki koy xam nga euh, comme sonnoo leen di ndox. dafa ndox ki ko bëgg def ci cuir chevelu naka la koy utiliser ndax day ñëw rek xam nga jamaïcain bu ñuy tourner clip yaa ko wax. day ñëw rek sottee koko <laughs> sañ nañ ko waaye xanaa man. mënumaa sottee ko ndox ko rek ñoo toog ci plateau bi muy toog. ah de yow tam nag déedéet doo ko aywa coro mii <laughs> xam lu ma koy def. coro doo ko def ah, ba pare ñoo toog ci plateau bi <laughs> déedéet xam nga dafa fekk boo koy utiliser. Mm. dafa fekk tu fais un soin à la maison. soin boo xam ne yaa ngi dëkk peut-être kër ga wala da nga dem salon sax ñu la koy defal. ok mënoo ko mélanger ak diw bopp. Euh, déedéet xam nga dafa ndoxee doo ko mën a mélanger ak sa diw bopp. Mm-hmm. kii da nga koy def rek euh, mu mel ni comme euh, genre rinçage. yow nga raxas sa bopp xam nga yow raxas nga sa bopp ba mu set après. nga daal di ko euh, def sa bopp mën nga jël sa benn pinceau rek wala sa loxo sax def sa bopp bu mu tooy daal di ko maase maase mu dugg en profondeur nga daal di jël